conférence de presse bii tey ci bisub àjjuma ji mooy dafa am ku ñu jàpp koo xamante ni mi ngi tudd Babacar Seye buubakar sëy nekk fii di ab sénégalais daal di ñu daal koy tëj ci lu dul yoon ci kaw loolu ñoo lànk daal di ne nañ ko libérer dans les plus brefs délais nañu ko bàyyi ndax am na ñu def lu raw li mu def te tëjuñu leen dañ leen a bàyyi ci mbedd mi ndax moom deful lu dul wax ni union européenne fonds yi nga xamante ni ñu ngi koy jox gouvernement bu senegal ngir mbëkk mi ñu regle ko diggante 2007 ba mille 2020 loolu la indi la bëgg ñu indi ci ay leeral ñu jàpp ko ci tëj ko jarul nag fàttaliku ndax diggante diggante 2000 diggante diggante diggante ay at yu néew lu mat juróomi téeméeri nit ak juróom-ñaar fukki nit dee nañ ci mbëkk mi nga xamante ni. moom mooy ñiy def ñiy jël gaal di dem bitim réew mu ëpp lool lim bi nga xamante ni ñu ngi koy compter ci coronavirus. lii nag nga xamante ni am na ñu jàpp ko jàpp boo xamante ni jàpp budul budul yoon la ñoo làmp ñoo lànk mi ngi bàyyi loo xel askan wi di bàyyi loo xel société civile bi di bàyyi loo xel chercheurs yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal kenn nekkatul en sécurité ndax kat. li nga xamante ni yoon may na la ko muy sa droit mën ngaa génn wax ko ñu jël la kidnappé la tëj la comme ni ñu të tëjee Boubacar Seye mii te loolu ku ne war na cee bàyyi xel lii nga xamante ni nag moo ji tëj tëj bu dul yoon ñoo lànk kat dafa jàpp ni lan moo tax ñu ñu ñu ñu tëj Boubacar Seye ndax kat dafa wax ni et Union européenne jox na trois cent 1310 milliards état bu Sénégal ci diggante mille 2007 ak mille vingt soit 93 milliards at bu jot ñu koy ñu koy jox état bu Sénégal loolu la laaj fan la ko état bu Sénégal jaarale te kat dañoo gis ni premier ministre France moom moo gën a wax loolu sax ki ñu wax Édouard Philippe moom moo njëkk a wax ni waa Sénégal Union européenne mi ngi leen di jox fonds yooyu te fonds yooyu nit tegul bët fu ñu koy dugal kon nag segam ab tubaab moo ko wax te dara fekk ko ci sénégalais bii nga xamante ni société civile la bokk moom da ko wax ñu jaay ko doole. tëj ko tëj boo xamante ni tëbu tëju ñaa yaama neex la di dellu si nag di wax ni ñoo lànk mi ngi demandé et mi ngi exiger ñu libérer kooku nga xamante ni moo di Boubacar Sèye ci kaw loolu ñi ngi wax ni nag Union européenne mu prononcé wu kat ci question bi parce que Union européenne lu jiin njaaga mooy njaag parce que Union européenne moom moo jël dërëm yooyu joxe ko kon nag bu dee dafa am koo xamante ni dafa am ay preuves yu tangible wax ko premier ministre bu France wax ko ñu jàpp ko ci tëj ko kon day yoon Union européenne bi nga xamante ni moom moo waral cëslaay loolu moom moo waral loolu lépp génn indi ci ay leeral loolu dañ koy exiger pour Union européenne def ko ndax bu ko deful rek moom complice complice la ak état ak état bu Sénégal ci kaw loolu ñoo lànk nag mi ngi woo ñoo lànk mi ngi fair appel ñoo lànk mi ngi wax ak société civile bi ci Sénégal yëpp ñoo lànk mi ngi woo parti politique yi nga xamante ni ñu ngi ci Sénégal yëpp ngir ñu dajaloo ngir xam ni kat lii bis buñ ko fi jëlewul kenn di nga toog sa kër jàpp ni yaa ngi conférence de presse nii ñu fekk la fa tëj la yóbbu la te kenn du wax dañ ne nag xuddee xuddee ko balaa ngaa lakkle ci kaw loolu ci fan yii di ñëw ñoo lànk dina dajaloo ak parti politique yi ak société civile yi ci Sénégal yëpp sans exception parce que lii kat yëfu ñëpp la ngir indi ay plan d'action yoo xamante nii day ànd ak xel xel mi mooy lan dañuy woo avocat yi nga xamante ni ñoom la seen xel màcc ci yoon te wax ni jàpp bii ñu ko jàpp du jàpp yoon ah gis nañ fi kat ñoo xamante ni ñi ngi def loo xamante ni naka su dul loolu la ñu mën cee préciser sax ñu doon def ay phobie ñu bàyyi leen ñu dox ci seen soxla kii nag nga xamante ni moom mooy ab sénégalais boo xamante ni dafa def lu dul demandé demande kon léegi demandé daal euh, erreur la Sénégal boo laajee dañ lay jàpp tëj la loolu nag ñoo lànk bi ngi woo société civile bi di woo parti politique yi ci semaine bii ñu ñëw incha allah mm-hmm. dinañ waajal plan d'action boo xamante ni presse nationale presse internationale diaspora ñun ñëpp ñu ngi koy ànd waajal en même temps ak ay avocat kii nga xamante ni